ba tey ñu toll ci sunu dars allamanil qur'an alqur'an jàngal na ma alqur'an xamal na ma ne dafa am afdalu awqaat qiraatu ayatul kursi yu dafa am ay waxtu yoo xam ne dafa am ab ngëneel jullit di ci jàng ayatal kursi yu place yu am solo ci sunuy waxtu yoo xamante ne jàng fa ayatul kursi yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam digle na ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal nañu ko ba ca jiitu mooy fil bayti jàng ayatal kursi yu ci kër gi man qara'aha fi baytihi takunu haarisa la wa tuxriju minhu shaytaan mbokk julli yi jàng ayatal kursi yu ci biir kër day tax kër ga nekk ci sécurité waaye seytaane day génn ci kër gi jàng nañu yéen ñëpp yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee dee leen jàng suuratul baqara ci seen biir kër bu leen def seen kër yi comme bàmmeel kër gu ñuy jàng alquraan kër googu seytaane munu faa taxawaalu ay kër goo xam ne musique guddeeg bëccëg fecc guddeeg bëccëg yaramu neen guddeeg bëccëg foo ci kër gi awra yaa ngi ci biti yaramu neen baa ngi ci biti musique baa ngi jolli ah mbokk yi kër googu day bu fa seytaane dëkkawulit jege fa kon nañu jàng alxuraan ci sunu biir kër yi dañuy fexe kër yi laab kër yi set kër yi sell dañuy fexe di jàng ayatul kursi yi ci biir kër yi ndax sunu biir kër yi am ay sécurité waaye seytaan di mën a génn ci biir kër ndax kat seytaane ci biir kër moom kër googu jàmm munu fa am kër googu wér munu fa am kër googu mbokk yi set munu faa nekk ndax seytaane fu tilim dong la bëgg ñaareel man qara'aha fi leyli di ko jàng guddi guddi képp ku ko jàng guddi yaxruju seytaanu min baytihi wala yadxuluhu xatta yusbix képp ku jàng ayatal kursi yu guddi ci barab ba nga nekk seytaane dana la daw du la jege ba bët set waay waay waay waay waay mbokk yi kiiraaya waay waay musluwaaya dara gënta ak réer dara gënta nekk ak ceddo ngay tëdd di diwoog di takkak di tudd ay xarfa fuufaak di moccak di jatak di wax loo xamante ne ay bàkkaar dong nga ciy jële doo ci am tiyaaba lii diine lislaam moo ñu ko jàngal lii yenent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko xamal lii alqur'aan moonu ko jàngal alqur'aan aaya ba ca gën a màgg mooy aayatal kursi yu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku ko jàng guddi seytaane day dalay daw du jege sa kër ba bët set ñetteel mooy booy tëdd ci sa kawlal ñetteel booy tëdd ci sa kawlal faman qara'aha fi firaashi inda nawmihi an nafsihi wa an awlaadi xafizahum llahu taala wala yastatiu sheytaan al iqtiraaba minhum xata yusbix mbokk jullit yi képp koo xam ne ñëw nga ba ci sa kawlal ngay tëdd di waaj nelaw moo xam yow ci sa bopp la moo xam say doom la seytaane du la mën a jege ba bët set allahu akbar xoolal waxuma yow sax sa bopp waaye rek say doom di tëdd nga léemul leen ko tëfli ko seen loxo ñu diw ko ci seen yaram wala nga tëfli ko ci seeni bopp diw ko seytaane du leen jege xale yooyu ba bët set allahu akbar fala yastati'u cheytaan al iqdiraaba minhum seytaane du leen mën a jege xatta yusbihu ba ñu ba ñu ba xëy suba nekk ci jàmm ñu nekk ci sécurité ñu nekk ci jàmm ñu mucc waxuma la yow mi nga xam ne yaa ko def mais sa njaboot gi nga ko defal nekk nañ ci jàmm kon gis ngeen ñetti barab a ngi nii boo ko jàngee sa kër boo ko jàngee guddi boo ñëwee ci sa kawlal ñeenteel mooy fi sobaahi ku ko jàng suba fa man qara'aha fi sobaahi képp ku ko jàng suba wa qabla an yaxruja min baytihi balaa ngay génn sa kër wa min baadiha ak bi nga génnee yaquulu ya xafiz après nga wax yaa yow yàlla mi sàmme yow yàlla mi sàmme mbokk jullit yi kooku def loolu day yakunu fi xifzi mawla dina nekk ci sécurité borom bi jalla saanuhu ila an yarja ba ba ngay del siwaat képp ku jàng ayatal kursi booy génn sa kër dina la sàmm ba ba ngay del siwaat ci sa biir kër allahu akbar waay waay waay waay waay waay waay waay bàyyi leen ndox yi ngeen di tuur ci buntu kër yi xoolal nit ku ñëw ba ci buntu këram amul lu muy def jël ndox di këpp jël ndox tuur ci oto bi jël ndox tuur ci place bi jël ndox jël ndox jël ndox waay waay waay mbokk yi ndox ñaata nit la sonal ndox ñaata nit la génn seen kër nañuy jël li ñu yonent bi indil nañuy jël li ñu yonent bi jàngal ndox mënul dara sunu borom subhaanahu wa taala mbir yëpp ci loxoom la nekk te lii moom moo ñu ko indil saa yoo xëyatee suba balaa ngay génn sa kër ak booy waaj génn wala boo génnee ba pare jàngal ayatal kursiw yàlla dina la sàmm ba ngay del siwaat juróomeel mooy ginnaaw waxtu yi julli yi juróom képp koo xam ne jàng nga ko baada kulli solaatin maktuba ginnaaw bépp julli boo xam ne farata yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lam yamna'uhu min duxulil janna illa an yamuut yonent bi nee na dara du la teree dugg aljanna lu dul faatu allahu akbar mbokk julli di bu fa doon ayatul kursi lii dong lay jëriñ rek doy na ndax ñun suñu dund gi ak coono yëpp liñ bëgg rek mooy dugg aljanna ñu ne la saa yoo jullee waxtu yi juróom jàngal ayatal kursi yonent bi nee na ku koy def dara du la teree dugg aljanna lu dul faatu juróomi julli juróomi yoon nga war koo wax am assurance suba tisbaar takkusaan timis gee waaye waay buñ duggul aljanna kat nu na buñ duggul aljanna buñ tuumaal kenn ëllëg nu na juróomeelu place ngoog juróom benneel jàng ayatal kursi yu ci guddi wala bëccëg ak foo yaakaar ne war nga faa mën a tiite wala loo ragal a ngi fa ñu ne loolu day day faj dalay aar day aar ci ay feebar ci ay njàqare ci ay tiitaange ci ay metit ba pare day tax sa dënn yaatu day tax doomu aadama bi loolu njàqare yi nekkoon ci xelam ak xolam ak jafe-jafe yi mu doon tiit sunu borom subhanahu wa taala ko ko ba pare yàlla sàmm ko sàmm njabootam sàmm alalam mbokk julli di ayatul kursi di faj ay feebar di dindi ay njàqare di yaatal dënn di dindil jaam bi ay jafe-jafe ak ay coono ak ay metit waaye di ko sàmm ci lépp lum mu mën a doon ci ay coono ki métit di sàmm di ko sàmm moom di sàmm njabootam di sàmm alalam kon juróom benn place a ngi nii yoo xam ne mën nañ cee jàng ayatal kursiyu nañ yàlla sàmm sàmm leen na yàlla taxaw leen xale yaa ngi kontaan ci yéen jirim yi ñu ngi leen di ñaanal seen way jur yaa ngi leen di ñaanal yal yàlla fay leen asalaamaaleykum wa rahmatullah